fekkoonte ni ñi ñu doon diriger am nañ jikko ju baax ragal nañ yàlla mhm. ñu ngi liggéey rek te yàlla tax ci Sénégal mhm. duñ buñ fi jógee continuité la ñuy wax waaye duñu fexe toog fii naan ay reddition des comptes c'est parce que seen jikko moo bon mhm. ba tax tey jikko jooju reflété ci seenub liggéey léegi nag ñii dañoo ñëw miser ci le capital humain capital humain jikko jooju noonu da ciy dikk waaye ci capital humain boobu noonu am na yeneen axe yu ama am solo yoo mm-hmm. xamante ne teg nañ ko ci mm-hmm. muy wàllum industrialisation wàllum lii wàllum laa dañ lay wax pétrole bi buñ ko exploité Sénégal par exemple dix pour cent la ciy am mm-hmm. waaye lan il faudra que ñu jëlee ay étranger ngir ñu ñëw ndax ñoom ñoo mën a def exploitation bi léegi capital humain boobu foofu tamit dafay intervenir parce que di nga former sa ay ndaw teel leen a former ñu am expertise bi bu ko defee pétrole bii ñuy wax wala gaz bii ñuy wax sa ay ndawu réew dinañ ko mën a exploiter parce que bu boobaa dinañ am main d'œuvre qualifiée euh, di nga leen jàngal ba lépp loo xamante ni dinañ ko jéggaani dina fi mën a nekk dinañu am jikko ju rafet non seulement waaye am mën-mën bi ba lépp loo xamante ni dañ koy gérer Sénégal dinañ ko mën parce que nag gis nga Sénégal réew la boo xamante ni Ouspa Ousmane maanaam 60 pour cent de sa population ay jeunes lañu. bien sûr pour cent am 75 pour cent. Mhm. gis nga loolu. Mhm. am nañ am nañu ndox. Mhm. am nañu naaj. Mm-hmm. am nañu suuf mm-hmm. ah am nañu lépp loo xamante ni tey je pense que buñ ko utiliser mm-hmm. ci anam yu mucc ay jeunes yi dinañ ci gis seen bopp mag ñi gis ci seen bopp amatul ni man maanaam damay xëy suba ba guddi war a xëy suba di lijjanti ji dépense bi pour mun koo yónnee sama njaboot ñu mën a dépense wu loolu yëpp nekk na loo xamante ne je pense que man bi ma dégloo référentiel bi référentiel bi j'ai préféré être chez moi bañ a dem Mm-hmm. toog sama kër déglu ko. Mm-hmm. tëju sama néeg attentivement déglu ko xool ñii lan la ñuy proposé. Mm-hmm. parce que nag à travers ce référentiel la ñu nar a doxalee tey li nga xamante ni moo di projet bi nga xamante ni depuis loolu ñu ngi koy wax donc man. te si capital humain boobu donc bala bala ngay tëj foofu ma dugg dafa am solo. waaw sa capital humain bu ñu koy wax xam nga tey ñu bëri dañuy wax moo bi en français rek nit ñi duñu xam. mais capital humain donc si wolof. moom mooy capitalu nit bu baax maanaam nit noobu doomu aadama bi mm-hmm. tey jii ñu bëri dañ koy jël rek donc dem jàpp ne capital humain mooy ay nit comme tey jii exemple bi ñu si jël mooy nit ñi ñi war a defar dëkk bi mm-hmm. mais bu naan la nit bu baax jëmmi doomu aadama bi mooy d'abord defar jikkoom mm-hmm. mooy nga yaru ko parce que tey jii gis nga tubaab yi ñu gënuñu ñu yaru de mais parce que dañ leen di sanctionné bañ jaaree fa yaru xam nga ne boo jëlee sa oto mu wóor na la fii nii nit ñi ñoo fi war a jaar nga dem nga gaare ko foofu noonu buñ la fekkee dañ lay sanctionné fay loola boo naanee sa mbuusu ndox mhm. pare sànni ko si mbedd mi mhm. dañ lay sanctionné nga fay tey jii nii nga nga nga nga nga naan sa kaasu kafe mhm. après boo paree sànni ko si mbedd dañ lay sanctionné léegi nag gis nga boo fexee ba defar nit nit boobu noonu moom mooy sàmm environnement bi nit boobu noonu bu naanee café ba pare xam na ne dafa war a dox ba gis poubelle mu sànni ko foofu noonu nit boobu bu naanee ndox aussi la même chose nit boobu noonu day xam ne moom moo war a defar dëkk bi moom moo war a sàmm dëkk bi mhm. mais aussi defar dëkk bi du rek ne sama intérêt laay xool mhm. donc li si des sama yoon nekku si mais nit bu baax moom mooy xool ne man kat war naa fexe ba lépp loo xam ne dafay lor yeneen doomu aadama yi man dinaa fexe ba du ma ko def mhm. moo tax capital humain am solo tey boo demee Japon boo demee yeneen dëkk dañuy yar seen doom yi ba nga xamante ni yar leen si donc laa patrie nga xam ne dañuy bëgg seen réew parce que bëgg sa du lu nit di wax rek ay eh. eh, dama bëgg sa sama réew dama bëgg sama réew mais bëgg sa réew d'abord mooy fexe ba doo lor say doomi réew bëgg sa réew boo dasee bokk mooy buñ la denkee alalu askan bi moo xam nga nekk maire moo xam nga nekk député moo xam loo man di doon ndombal tànk boo mën a am ñu jox la loo xamante ni askan bi ñoom ñoo ko moom di nga ko mën a sàmm ni nga ko war a sàmm ba askan bi gis si boppam bu baax a baax a baax donc bëgg sa réew daf si bokk ne duñ la jox budget nga détourné ko mhm. tabax si ay kër yow ak sa njaboot nga siy dund mm-hmm. tey jii wax nga ko léegi bu fekkoon ne am nañ capital humain bu normal duñ fa wax réduction des comptes donc tey jii nii li ñu soxla mooy justice boo xamante nii parce que juum mënul ñàkk en tant que ay doomu aadama ku juum mu jubbanti la mm-hmm. mais Sénégal li fi am du juum mais ñàkk ñàkk yaru ak maa tey ak réewande moom moo am Sénégal moo waral lii am am mooy ñu jox la suñu budget ne la yow la ñu wóolu pour nga defar réew mi nga détourner alal boobu noonu jox ko say say nit donc ñu politiquer ko après nga taxaw naan maa ngi di maa tey defuma dara parce que maa tey mënul passé ñu def la président de la république pendant douze ans nga yor réew mi ñu ñëw ne la yow da ngaa leb ba leb loo xamante ni xamoo sax ni nga leb nu mu toll parce que da nga dem ba yow doonoo ko bind xamatoo nu la toll ñu ne la plus de ay mille huit cent milliards yoo xam dafa disparaître xamoo nan nga ko jëfandikoo ba pare yow yemoo si loolu réew maa ngi ci crise nga dem taxaw fële naan donc li ñuy wax dara du si dëgg man bi may dem nii ak nii la bàyyi réew mi te yow wóor na la yow li ñuy wax ni dëgg la loolu xam nga lan la loolu mooy mathéisme dëgg-dëgg moom mooy loolu donc loolu nag je pense que capital humain boobu moo tax mu am solo moo tax nit ñi mhm. capital humain bu ñu ko xoolee rek ne maanaam nit yoo xam ne ñoo war a tabax réew mais nañu xoolee ne jëmmi doomu aadama bi la ñuy defar yar leen merci beaucoup yar leen ba nga xam ne dañuy yaru nga xamante ni tey boo demee si téere Serigne Touba ni mu bindee nax ju mhm. ne doomu aadama nii la war a yaroo yar bii la war a am copital humain daf lay jàngal ne nit ki donc mhm. taxawaay boobu nga war a am moo tax capital humain boobu lu ama am solo la yoo xam ne bu ñu ko doon c'est parce que lu gudd gudd lay doon merci beaucoup solo ci vision bi te bu leen neexoon mhm. Ousmane ñu toog fi di ñu wax ay waxum infrastructure bien gis ko Euh, stade Abdoulaye Wade bi ñu mhm. naan la ay cent cinquante milliards lañ ci mhm. lañ ci lañ ci financé arène nationale ñu ne ñu ne dañu koo kii te waaw dañu koo may la te tey jii nii bi ñu naan la mhm. quatre cent milliards TER bi ñu naan la mille milliards alors que maanaam ñoom nekkul ni dañuy defar loolu pour askan bi jariñoo ci mais bëgg nañ dëgg la ñu ne diw de moo fi bàyyi lii diw moo fi bàyyi lii waaye li nekk ci suuf ay surfacturation ay coowal surfacturation mhm. je pense que loolu sax moo indi coowal Jean Michel bu ñuy wax jamono ji mhm. ah ci euh, Azer ñu naan la <laughs> surfacturation bu toll mhm. ci quinze milliards de francs CFA mu dikk daal di ne lii duma ko bàyyi mu mu sedd dans le cadre di jub jubal jubbanti il faudra que ma interagir ci def ci li ma war a def donc loolu nekk na lu ama am solo ay infrastructure baax na dëgg la waaye lépp da koy tënk ci nit ki boo defaree nit ki ba pare di nga ko mën a xëy na jox jumtukaay yi war ngir boo tegee sa industrie mu liggéey waaye ci jub jubal liggéey ak mhm. akulaay taalaam bu ko defee Sénégal dina développé mhm. yeneen infrastructure aussi mën na cee amaat bien sûr parce que la boo xoolee ñu bëri liñ naan da tey tabax stade donc defar BRT defar TER mhm. boo xoolee finalité bi du pour ñu liggéey ko pour bien-être askan bi mais parce xam nañ ne si genre projet yooyu si lañ mën a détourner liñ bëgg a tey buñ taxawee ne la TER bi def nañ si mille milliards mais yéen wul maanaa tey jii bi nga xam ne am na ko. donc euh, ci quinze wagons yi dépassé wu sax xaw ma cinq cent et quelques milliards la ci dépassé. boobaa Sénégal yow loo xam ne vingt cinq kilomètres la Dakar dem ñaajo mhm. ñu ne la dépassé nañ ci mille def ko si. xam loolu xel sax mënu ko nangu mooy toujours. dañuy def loo xam ne day fës nit ñi ne ah diwkat moo fi def li lii rafet na. Mhm. mais li nga xam ne moom moo nekk suuf yow du la ko mas a wax. mais BRT bi 400 milliards. al xoolal tay jafe-jafe yi. bien sûr maanaam yow. dë dëgg la dina transporter ay millions de sénégalais. Mhm. yow li ngay jëlaat di ko di ko di ko dépassé pour pour pour euh, wàllu maintenance bi. Mhm. mooy ëpp fuuf li nga xam ne yow gagné nga ko si maanaam yow li nga si li ngay faye bor bi ak li nga xam ne loolu nga siy defaat pour raxas beeg donc defaraat koog yooyu noonu yow mooy ëpp sax li nga xam ne yow gañee nga ko. si li nga xam ne moom mooy BRT bi. Mhm. tey jii dama gis waa APR ñu bëri démb ba di partagé naan. wala ñi fi taxawoon di ŋàññi mag Sall tey jii Dakar Arena naan Macky Sall nii lii Dakar Arena boobu la ñu jël pour war fa dem def fa seen meeting waa la ñuy wax. Mhm. problème mooy war nañu wax sénégalais ni leen Dakar Arena boobu ñaata milliards lañ ko defaree. ñaata milliards. ñaata milliards lañ ko defalee. Mhm. tey jii xaalis bi ñu ko defaree ñaata lañ ci lépp. pourtant 1000 milliards yi ñu def ci terre bu fekkee ne 1000 milliards lañ ci def 1000 milliards yooyu mënoon nañ ko jëlee ci biir réew mi. Mhm. mais dañuy dem lebi ji ko parce boobu noonu mooy mën a tax. Mhm. ñoom ñu man ci am liñ ci am. loolu nag capital humain bi ba léegi daf ciy ñëwaat. mooy tey jii bu ñu amee capital humain bu baax. nit dootul jël xaalis. war si defar donc li nga xamante ni moom mooy ay kër. Mhm. wala mu war si jënd ay oto pour gouvernement bi. Mhm. mu dem lu war a jar quinze millions. mu fac mu surfacturé ko ne trente millions la ko jëndee. Mhm. capital humain bu baaxee tey jii li xew ASER ay nit nekk si ginnaaw di fay ay journaux ñu leen defal ala indi yàq deru nit mm-hmm. capital humain e bu baaxee nit du xalaat a jël xaalisam ah. di ko fay nit pour yàqal ko deru nit mm-hmm. capital humain e bu baaxee tey li xew si réseaux sociaux yi ñuy saaga ay nit mm-hmm. donc di leen xas di leen menacer di leen wax lu nekk loolu boobaa du am moo tax Sénégal d'abord fi ñu war a commencer pour man premier axe projet bi sax moo waroon doon capital humain e moo waroon nekk premier axe projet bi mooy d'abord yar nit ñi yar sénégalais yi ba tey jii wax leen ne la nit du question nga da am sa liberté lu la neex ngay wax lu la neex ngay def. Mhm. nit du question nga da am sa liberté donc mën nga xas ku la neex mën nga saaga ku la neex buñ la jàppee ñu ne noonu nañ ko bàyyi nangam ak naan. Mhm. moo tax d' abord faaw ñu yar génération bii ñëw parce que xam naa ne. sénération bi fi nekk nii moom dinañu naqaree yar surtout nag mag ñi nga xam ne hmm. dañu nekk ay mag yu jëm ba pare gën a réew ñëpp di wax lu leen neex di xas ku leen neex parce que xam nañ ne dara du leen fekk parce que am hmm. nañu benn dayoo si rëkk bi moo tax génération bi nga xamante ni nii hmm. moom mooy waaji ñëw muy xale yi am sept ans nga xam dañuy door a dugg école pour man war nañu profité ñu réformer li nga xam ne mooy système éducatif bi donc jàngal leen yar leen jàngal leen ay valeur suñu mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ba nga xam ne buñ ko màggaalee bu ëllëgee dootuñ mel comme mhm. génération bi nga xam ne moom mooy génération passée moo tax capital humain daal eh, pour tënk loolu moom mooy jëmmi projet bi dañ jàpp ne capital humain mu ngoog lépp hmm. dafay daal di tënk ci loolu noonu ah bu ko hmm. defee nag ñu ñaan rek borom bi daal di sotti lépp mu daal sotti sénégalais yëpp gis ci seen bopp parce que bu sottee euh, jaaykatu gerte caaf bi mm. agriculteur bi keneen ak keneen ñun journaliste yi mm. yow euh, euh, Ousmane activiste ah Fallou technicien ku ci nekk da ciy gis boppam parce que tey di nga dem ci boutique ba war a ndugg gis ni yëf yi wàññeeku na sa dundin ci boppam di nga gis ni am na ay coppite yu am solo yoo xamante ne am na ci mm-hmm. donc yal na yàlla matale lépp rek incha allah te borom bi musal ñu ci ay ak waxkatu ñaawteef yi nga xamante ni mhm. jamono ji bëgguñu lenn lu dul rek Sénégal ndërmeelu bu ko defee ñoom dañoo sa soccu ba pare mhm. bëgg a reetaan yal nañu yàlla musal ci loolu Ousmane je pense que waaw jar nañu musal man de yenn saa yi wax dëgg damay gis ay nit mhm. ñu def ay publication yoo xamante ni nii man dama naan ñii ñoom daal seen bëgg-bëgg mooy heure bu ñu xëyee ñu gis loo xam ne échec lay doon si gouvernement maanaam ñoom dañu jàpp ne loolu échec bu gouvernement fekk ne échec bu Sénégal lay doon waaw xam nga tey boo gisee ñaari étudiant génn di ñaxtu. Mhm. te ministre bi génn wax na dinañu fay bourse yi. Mhm. nga dem donc manipuler ay nit ñu sol ay ay morceaux yu rouge. Mhm. taxaw def seen benn vidéo nga ne voilà gis nga étudiants yi ngi ñaxtu génn nañ ci mbedd parce que dañ leen fayul seen ay bourse tey jii nii groupe La Poste bi nga xam ne jël nañ ko bëgg ko politiquer. feneen ak feneen yàkkamti nañ benn nit génn wax dara rek après ñu politiquer ko. donc fësal ko da nga naan ce que ñoom. bëgg nañu réew mi. Mhm. est ce bëgg nañu Sénégal avancé. Mhm. yow koo xam ne yow bu régime bi essayé ñun ñëpp a mais am na ñoo xam ne suba ba ngoon li ñaan mooy. na na régime bi yëngu wax naa ko fi tey jii bëgguñu ñu ne Ousmane Sonko kat moo defar Sénégal jox ko Sénégal si cinq ans mu defar réew mi ba ñëpp a gis seen bopp. Mhm. am na ñoo xam ne bëgguñu loolu. xam nga ñaan bu ñu fayee yal na Sonko loolu la ñuy ñaan heure bu ñu xëyee soo ba ngoon mooy mm-hmm. yàlla li ñuy def yëpp yàlla bu si dara am ah, moo tax ñu nit suñu xëyee mi baax suñu xëyee nañuy muslu rek ñu ni tamit bu ñu ñaanee fii ñu ne ñu muslu ci seytaane te luñ fi taxaw manipuler ko pour wax ko dinañu dinañu ñëwaat démentir ah, ko pour leeral ko Sénégalais parce que am na benn patron de presse du mm-hmm. du comédien bi nag parce que moom moom c'est vrai que il fait de la comédie muy Bougane Gueye Dany mm. mais c'est pas lui beneen mm. beneen patron de presse boo mm. xamante ni moom itamit jamono jii mi ngi ci yoo xamante ni je pense qu'il ferait na arrêter c'est un politicien gis nañ tey manipulation yi nga xamante ni mu ngi koy def gis nañ tey yenn information yu bëri yoo xamante ni mi ngi circuler rawatina ci affaire Jean-Michel bii ma lay wax mm-hmm. moom moo nekk derrière on le sait et on a tous les documents mm-hmm. il n'a qu'à arrêter parce que mm-hmm. nag ñun itamit journaliste ñu différencier ak yow mooy ñun ci dëggu la ñuy dox ci mm. dëgg la ñuy dox dëgg la ñuy wax mm. donc il faut que tu arrêtes balaa que ñuy euh, egg ak yow ci benn stade boo xamante ni daanaka bëgguñu ko woon na Ousmane daa xam naa mun nañoo jaare foofu rek daal di yëkkati man may waxaat Salma mm-hmm. Mahmoud Ibra Kane laa koy wax <laughs> waaw Mahmoud Ibra Kane mm-hmm. fayal waa E-Media seen salaire yi mm-hmm. cinq mois sans salaire dafa metti torop ay père de famille lañ ay mère de famille lañ ay soutien de famille lañ yoo xam ne seen famille si ñoom la yaakaar cinq mois ñu toog ko fayoo leen seen salaire loolu teguwul fenn du dëgg du yoon. bu fekkee nag mën ngaa génn ci débat public yi di dal ci kaw Diomaye ak Sonko. donc di wax lu la neex. di dal ci kaw ay nit parce que nee nañ dañu dañu dañu lancer cagnotte. parce que respecté wuñ sénégalais yi. respecté sénégalais yi mii commencé si boo jëlee ay ndaw yi ñoo xam ne dañu jàng ba am métier yaakaar si loolu kese pour sutur suturloowu. Mm. donc aussi tamit pour seen njaboot bu leen dara dalee ñu man leen see faj. Mhm. sénégalais yooyu respecté sénégalais yi muy commencé si nga fay ñooñu seen xaalis bi nga xam ne ameel nga leen ko. Mhm. naa Mamadou Ibra Kane bu fekkee yaa ngi may déglu waa e nee nañ cinq mois lañ toog juróomi weer. Mhm. juróomi weer yoo xam ne laalu ñu dërëm fay leen seen salaire yi te bàyyi li nga ne xam ne moom nga nekkee si dëkk bi. bala ngay bala ngay bala ngay joxe bala ngay jubbanti ay nit. Mm, donc yow da ngay jub ba pare. te jub ba pare bokk na si. liggéeyloo ay nit ba pare. fay leen seen xaalis ni mu waree mais liggéeyloo ay nit fayoo leen di leen dawloo. ñu mhm. nekk di ñaxtu guddeeg bëccëg di génn ay communiqué. Mhm. ba pare yow nga ne da ngay joxe bon exemple. je pense mhm. que yow doo exemple. ba war a joxe exemple si ñenn